mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yu tedd yi rawatina suñu mbokk taalibe yi nuy bàyyi xel te di ñu seetaan bu ngeen gisee jataay bii ñu toog ci kanamu sang bu tedd bi cheikh mahamadul basir anta ñang xalifatu cheikh ibrahima fati borom daarul moxti xam ni ndigal lu mag bàyyikoo na fa mu daan bàyyikoo tàbbi fi mu baaxoo tàbbikoo muy bàyyikoo ci ki fi nekkal Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba xadim rasul wàcc si ki fi nekkal a cheikh ibrahima fati borom daarul moxti mbokk yi ndigal loolu nag mooy ndigal lan ndigalul fàttaliku ak a màggal bisub dajëb Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ginnaaw tukkib géej bi yanoog fukki fan ak juróom ci weeru sax ban ci diggante Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul mu di ko defee nag ni ko mboolem magam yu baax yëpp daan defee bu ñu jotee ndigal ci ki fi nekkal Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul tàmbalee ko ci Serigne Mouhamadou Awa Balla Mbacké Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké Serigne Cheikh Khadim Mbacké ba ci Seydina Abbas yal na yàlla sunu borom yokk ay leeram noonu ko fas yéene wootee ànd koog njabootu borom Darou teew fii ci kanam sëriñ ba Anta Niang moom mi toog toogaayu borom Darou Mouhty li waral jataay bi nag mooy bis bi nga xamante ni bii mooy màggaluk Darou Mouhty màggal gi ren mooy juróom ñaar fukkeelu màggal gi ak juróom ñeent mm-hmm. juróom ñett fukk yu manqué benn mm-hmm. dañuy ñaan rek Serigne ba siru Niang mii nga xamante ni tey mooy borom daarul moxti mhm. sunu borom yàggal ko fi lool Mbàkke te wéral ko ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal waajuram ba mu liggéey ko ci eh, sagoom li ñuy wax nag mooy dëkk bi rek la ñuy waxal mhm. na moon ngeen ak màggal sëñ Basi indiwaat na ak màggal kon yéen waa dëkk bi na ngeen laxasaay waat te góorgóorlu mhm. waaye borom màggal gi mooy defar màggal gi waaw borom màggal gii ngeen di màggal mooy defar màggal gi kon nag yéen waa dëkk bi maa ngi leen di dénk taxawu nit ñi waaw kon nag muy daaru muxti muy daaru marnaan goog sëñ Cheikh Awa Balla muy daaru manaan gee ku fa nekk te amato te taalibe bul yokk paas bul gàllankoor nit ñi na nga leen bàyyi ñu ñëw euh, màggal nag namoon nañu ko lool kon nag sëriñ bi na nga naanal ñun ñëpp yàlla jox leen xéewal ginnaaw màggal di kat na kon nag yéen waa dëkk bi na ngeen def noonu te taxawu te taxaw bu baax a baax a baax euh, danoo am lu kenn amul nit ki nag bu amee lu kenn amul da ko war a jàppe lu kenn nu ko kenn jàppewul mm. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm wasalaam yéen mbokk yi teew sëriñ bi nee na nun mbokk yi teew tey te di ñu seetaan ak mboolem mbokk taalibi yëpp ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen sant tey am mbégte lool ci seen teew nee na tey am mbégte lool ci teewaayu njaboot gi ak mboolem ñuy seetaan woote gi nee na woote bi nag mm, yëgle bis bi nee yëgle bis bi rek la ci ndigalal sëriñ Muntaxa. nee ci ndigalul sëriñ Mouhamadul Muntaxa. moom nag moom mi moom bis bii. nee na bis bii di bisu borom daarul moxti. ñu di leen yëgal nee ñu di leen yëgal ni. Euh, fukki fan ak juróom lay doon ci saxbaan. nee fukki fan ak juróom lay lay doon ci weeru saxbaan wii ñu dugg. ñu ngi ciy woo ñëpp. sëriñ bi nee na ñu ngi ciy woo mboolem jullit yëpp. ñu teew fii. nee ñu maase ci teew fii ci daarul moxti. taasu nee ñu taasu ci barke borom daarul moxti. ñaanal ko. bon nag nee na bon nag bis boobu. Mm, bu yegsee bu yegsee. ñu xam ne mbégteem ñëpp la. xam ni bis boobu de mbégteem ñëpp la. nee na ñun ñëpp nañu maase ci fonk ko. te toppatoo ko bu baax toppatoo bis boobu bu baax a baax a baax. Eh, eh, liggéey bi nga xam ne mooy jumaa ji. nee na liggéey bii nga xam ne mooy jumaa ji itam. ngeen góorgóorlu ci nee na ñu maase ci góor góorgóorlu ci. ndax sëriñ moo Awa Balla. ndax sëriñ Mouhamadou Awa Balla neewoon na. Eh, sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. am na bis mu génn ci buntu kër bi. am na bis mu génn fii ci buntu kër bi. ni suñ dëkk bi de léegi tubaarkàlla. ni suñ dëkk bi de léegi tubaarkàlla. jumaa jumaa rek de moo fi des. ginnaaw mu wax ci làmmiñu tedd mu wax ci làmmiñam mu tedd woowa. ni jumaa rek moo fi des. jumaa ji sëñ bi sëñ Modou liggéey na ko ba mu yegg. ko ba mu yegg. li ci war lépp def na ko. li ci war lépp def na ko. mooy bu fi xoos-xoos nekkoon it. a bàyyi lépp nee nu war a bàyyi lépp ba defaraat loola ba defaraat loola ba mel na meloon te war naa nekk di jumaa joo xam ne ji nee te war naa nekk di jumaa joo xamante nii ginnaaw Touba ginnaaw Touba jenn jumaa du mel ni moom jenn jumaa du mel ni moom te loolu lañ fas yéene nee te loolu kat la ñu fas yéene mi ngi digal ñëpp mi ngi digal ñëpp it bu leen ci caaxaan bu leen ci caaxaan ndax liggéeyal seen sëriñ ba yombul ndax liggéeyal seen sëriñ ba borom daaru muxti yombul ci baatam ci baatam te looloo mujj ci baatam nee te looloo mujj ci baatam muy jumaa ji wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. maa ngi nuyu ñëpp ñi tegu ci jataay bi te xam ne noo bokk yëf yi waaye di nuyu mbooleem adduna bi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réewum Sénégal gii ak mboolem koo xam ne kii da nga aju ci borom daaru moo rawatina ñu ko aju ci sëriñ Touba ak bépp jullit fu waay mën nekk ak doomi réew mi yaakaar naa ne weer wii kenn ku nekk ci noonu ñu bare bare bari laaj nañ la ndax sëñ bi dina woote màggal gi renam dégg kon tontu li ñëw na tey sëriñ bi juboo na ceeg sëriñ Muntaxa eh, ne mu defee màggalug poroxaan ren juboo na ceeg moom mu def màggalug Daaru Muxti ren moom itam noonee sëriñ bi nag nee na ko noonee nga xam ne ñala jiitu noo lañ ko daan doxalee ba ak si ceew noonee na ko jàppee noonu yëgal ko ñëpp taxawee ko nañ ko taxaw kon nag loola moom ci nun la dese kon sëriñ bi day soññi mboolem ñi bokkal borom Daaru Muxti soññi leen seenu seenu njaboot noonu itam nag lay jaaraale ci biir loolu liggéey bi nga xam ne sumb na ko muy jumaa yi daaru moxti ji ngir yeesalaat gi sololaat ko mbubb ñu koy waxee mm, kenn ku ci nekk mu soññ la ci soññ ci sa njaboot mm-hmm. kenn ku nekk na nga dem ci sa sa kilifa jox ko la nga am kilifa googee nag bis bu jàppee ne lii war na ko mën a indi ci sëriñ bi mu amatul bis sàngam ak bis sàngam mm-hmm. ku jekku rek ñëwal mm-hmm. mboolem ñi nga xam ne ñooy ñi yàlla euh, jox yëfi adduna yi ñoo ngi leen di xamal ne leen amuñu lu may bisu borom daarul muxti bi kenn ku ci ne na nga ci daan taxawee na nga ci taxawee moo xam président de la république moom yalla teg ci bopp réew bi la wala ay ministre am wala ay ay ay ay ay gouverneur am ak ay préfet am ak ay sous préfet yëpp ñoo ci ak takk der yi kenn ku ci ne wet nga nga ci taxawee nga taxaw mbooleem daaray alquran yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, biir réew mi yëpp yëpp yëpp waaye nag lu gën a jege gën a yey mooy fii ci dëkku boppam bii ak ci euh, Touba ak yaari daaru manaan yi daaru kos ak këri borom daaru mot yëpp ñoo gën a yey ñu tàmbalee ci waaye nag booleem fu daara alxuraan nekk rek amul tarix murit amul tarix tijaan wala leneen yëpp sàkku na ñu jàng alxuraan euh, jagleel ko borom daaru mooti ak mboolem ñam fa jëm fa bokkal nekk yéen a ji mën naa yóbbaale ñëpp euh, xasiday sëriñ Tuubaa yi al istixfaar ak lépp lu mën a jariñ aji dawlu sëriñ bi sakku na ñu ñu ca bis ba buñ ci àggee wala la ko jiitu sax kon bis bi yàlla na ci yàlla yóbbu ak lépp luñ ci def suñu borom nangoo na ko sëriñ bi yàlla yàggali suñu kanam wéral wéral wéral say cër mm. te yéen ji nga xam ne am nga ko xam nañ ci am na luñ ci jot a xam mm. yàlla may la nga àggale ko te nu ànd ko yow nekk ci sa ginnaaw di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi kon bis baa ngoog woote baa ngoog fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan fàttaliku dajëb Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul Serigne bi nee na mi ngi ciy woo ñëpp di séentu ñëpp di sant ñëpp di ñaan képp ku ca teew wala nga am yéene teew ci yàlla nanga ci daje ngërëmul Serigne Touba Cheikhul Khadim bi barakati maam Cerno Birahim borom Daarul Muxti wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu